Faye ku jàmbaar la directeur FERA ndax jiite nit ñi yombul seddale yombul maanaam nii programme bii nga xam ne dañ ko ko jox mu yor ko soo ñëwee wax keroog bi ma toogee moom ñu waxtaan mu ne ma ne ko lii laa bëgg mu ne ma ah may ma tuuti may ma ba alxames fekk benn lundi la mu ne ma may ba alxames bu jéem ko lu jafe la mais danaa ko jéem bi mu ñëwee alxames ma dellu si waat ànd ak sama directeur cabinet di sant bu baax a baax Cheikh Mansour Diouf maa ma fekk nga xam ne mooy mooy moo fa nekk ma ànd ak maa moom toog ci bureau li ma ko tegaloon condition yëpp dama koo nangu ba pare nag apartie ko sant ma ci ñu ànd liggéey ko ba def contrat yi maanaam ba moo tax tey jii kere bi mu ne ma aussi engagé wu naa ma ne ko man nag lenn laa am yonent bi def ne koy liggéey loo boo ko liggéeyloo balaaw ñaqa moo fer na nga ko fay te du ma gë atte nu ma àq liggéey atte nu ma àq waxuma laa àq boo xam ne nit ki dafa liggéey ba weer de mën naa ko tey ëllëg suba ngoon ndax entreprise bi ma kere bi ma ko créé ba bisab tey bii ma toll bis bu ma yaakaare ne wér yi du ko mën a fay bis boobu laay tëj entreprise bi ndax ñemewu ma liggéey mu toog sëñ wax man soo toog mu ne ma insha allahu rabbi benn bis ci àddina benn weer ci àddina du ko tardé chaque le 23 danañu traité salaire yi danaa la ko yónnee nag ma ko yónnee soo ma ko yónnee danaa ko traité ba ba ba benn du tardé benn bis keroog ak tey tardégul benn bis bi ma ñëwee yëpp loolu laa conseillé xale ñii ñi ma def appel candidature mboolem xale boo xam ne bëgg ngaa liggéey te nangoo liggéey na nga ñëw ñu ñëw ñu jël leen ubbil leen ay compte signé leen ay contrat comme ni ko euh, soxna si doon wax léegi doon waxee xaw ma naka la tudd kana donc ni mu ko waxee léegi ñoom it ñu de euh, suivre loolu ubbi ay compte ñu di leen virer seen seen salaire ñenn yor seen carte GAB ñenn yor seen carte sec di ci jàppale seen i wàjjur ñu mën a toll loolu nag su amee faw ñu sant président de la république saaw ñu ci ñaari mbir ci réew mi nga xam ne moom la yor ñu war a jàppale nit ñi ci liggéey tem def ko waaye sant ko ci lim xam ne bëgg-bëggu xalifa général des mourides mooy taxawu nit ñi ci dëkk bi mu jàppale ko ci jàppale bu toon yi ndax fii lu fi waaye dem rek sëñ Tuubaa nga ko defal te mi ngi leen di mi ngi ciy jàpp li mën lépp ndax lu ñu ko wax ci adduna ci dëkk bi dana ne nañ seet nañ la mën a nekk boo ko mënee def dana ko def bu ko mën a dana fexe ba mën a nekk mu def ko kon faw ñu sant ko waaye di sant personnel boobu baax a baax a baax waa FERA ndax li waral lii tey seen sargal bi lu baax la waaye day da ngeen a sàmm seen ngor sàmm seen kaddu sàmm seen engagement moo tax ñu agsi fii tey mën nañ bu ñu ñëwee fii tey ñu ne ma de ma naan 300 la woon 130 yëpp dàq naa leen. wala arrêté naa leen tey jii mën a nàmp parce que bu fekkoon ne du seen engagement du seen jikko du seen nangoo liggéey du seen jub man aw ma partenaire benn partenaire laa muy ku nangoo liggéey ku nanguute liggéey wala juboo moom moom dafa mel damaa mel ni yow sii nag Taïwan tam d'accord koo digg ma coor rek boo seetee am na nekk suñ diggante bëgg naa dañuy tappale ma lan wala mu nanguute liggéey man ku nanguute liggéey ndax ku nanguuti liggéey ku yàlla bind munu koo defal ah as go nit bu bëggee bu bëggee jàng dafay jub te nangoo liggéey surtout gone gone nag bu amee bu ko yàlla dimbalee ci ñaar yi bu jubee te nangoo liggéey li ci ne lépp faw mu dajeeg ndimbal suñu borom lu mu naqare naqare tey bis dana ñëw mu neex ci moom ndax bis dana ñëw mu am li mu bëgg te ñoom jub nañ jub nañ nangu na ñëw liggéey loolu moom ñëpp ku ko xam Abdou Lahad Ka ci secteur privé xam nga ko ku xam Abdoulaye Arte ci public xam nga ko ñoom ñëpp personnel bi loolu mooy samay défaut mooy képp ku jub nangoo liggéey mënumaa ànd ak yow ndax maa liggéey yow ndax man damaa bëgg am jàmm te sama diggante torox liggéey képp fi dox moo te bañ koo yàq sama diggante mucc du jub képp fi dox moo tax ñaar yi ni ma yore sa teg sama fi ma teg sama bakkan de sama diine bi sama daali bi fi laa ko teg te di ko digal bépp ci yoon boo xam ne yaa ngi ci réew mi te fas naa dem loolu te nga bàyyi xel ci loolu di nuyu nag jeunesse bu jeunesse bi bu baax a baax a baax di leen sant maa ngi sant personnel bépp nag di leen souhaiter bonne année ci 2022 bi ci at mii ñu jëm di leen wax nag ne dañoo am problème am ngeen problème bu rëy rëy boo xam ne occasion la ma wax leen ko fii mooy ñun bu fekkoon ne dañ doon jàng fi mu ne dañuy tari tari nag dafa amul yi caaxaan képp koo xam ne employé nga bu nekk ci commune di ci liggéey ak foo mën a nekk ci secteur boo mën a ne moo xam yaa nga Baqiya moo xam yaa ngi ci jumaa ji moo xam yaa nga résidence moo xam yaa ngi kër xalifa moo xam yaa ci travaux yi nekk conducteur de travaux moo xam yaa ngi ci gardien yi ci marché Ocass wala feneen muy koo mën a doon muy set ñi yor sécurité bi muy ñi yor euh, état civil muy ñi nga xam ne ñoo yor recette collecteurs yi kum ci mën a doon nanga wóor ni na nga takkuwaat te xam ne année bii ñu ne suñu fi yàlla bàyyee dañoo bëgg résultat boo xam ne lu ne fang lay doon dootul lu ñuy jeex te lu ne fang kenn du ko wax ku ami bët lu lu ne ku amuli bët ku nag jëlul wax ma nga nee defe naa ne bariwul li ma leen wax ku laan ko daan wax bi ko bi mandat bi desee ñetti weer toog naa fii ne leen na ngeen ñaan man de yàlla na yàlla nañ ma yàlla nañ ma yewi ma dem waaye su fekkee ni yewi ma yaakaar naa ne ñun ñëpp danañ xaw a dee loolu dafa naa ne lakkuma ko woon léeguma ko woon kàlluwuma ko woon ay woyof yu leer laa ko wax ci réunion bu ma mas a ak yéen rek wax naa leen gannaaw nag yàlla mii dogal dogal na sëriñ bi nga xam ne mooy sama sëriñ nee na ma nañu na nga continuer liggéey bi te ma ànd ko yéen ànd ko ak conseil municipal bi na ngeen xam ne lañ doon wax lañ doon waxantukat tey jii dafa doon dëgg nañu ko nañu fas yéene jàmbaar ngeen ñëw doo leen ay nasax jubadiw leen ndax bu ku ci jubadi ñi ku jubadi moom na tàggoog man ku nasax du ànd ak yow ndax man kenn du gaare gaare waale ma ci sama liggéeyam bopp sax waxuma naa liggéeyab sëñ Tuubaa kon nag li ëpp li jàpp wax lépp nag ci mbiram sëñ beeg yoon wi sëriñ Sidi Seexuna wax na ko daanaka jarutoon ma di ci dese bi mu waxee ba noppi rek mën nañoo ñaan maanaam jóg dem ndax barab moom saa boo fa toogee di déglu boo fa déggee dëgg du munoo faa dégg lu ëpp dëgg booye boo nga dem te la nga dégg nga jëfandikoo ji boo fa déggee caaxaan booye boo nga jóg fa te xam ne fu ñuy waxee caaxaan jarul toog donc nag te defe naa dégg ngeen fi dëgg koo xam ne kenn amul loo ciy wax maanaam dégg ngeen fi loo xam ne képp ko dib taalibe doy na laa jàpp war nga cee mën a jàpp ngir xam ne liggéey sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw tànki kanam la am te damaa fas rek man liggéeyal sëriñ